asalaamaaleykum euh, mbooloo mi maa ngi nuyu waa presse bi euh, di nuyu collectif bi ma àndal euh, collectif des élus de la Médina ñun ñoo ñëwoon pour waxtaan ak waa Médina pour waxtaan ak waa Sénégal yépp ci li nga xam ne moo jot a am ci Médina ñu tuddee ko affaire Covid 19 bi ndax. kenn umpalewul ne monsieur le maire de la Médina le maire Bamba Fall dafa convoqué woon le conseil municipal mercredi 8 avril 2020 bi mu leen convoqué ñu jàpp ne nam ñu convoqué woon baaxul li tax baaxul mooy ay SMS la ñu envoyé woon 24 heures avant réunion bi ñu jàpp ne même bu dee en cas d'urgence la mën nañ ko ko nangul bi loolu amee dem nañ ca réunion ba mais bi ñu demee ci réunion ba dañu ñëw ci entrée salle ba lañ ñu joxee ay document pour ñu def ay délibération donc mu nekk violation wu article 146 bu code général de collectivités locale ndax ci article 146 code des collectivités locales dafa wax ne pour maire bi convoquer réunion dafa war a woo conseil yëpp ci bind mooy par écris la leen war a convoqué daal di leen di yónnee li nga xamante ne ki mooy document yi ñu war a délibéré mu ànd ak moom mu yóbbul leen ko seen kër bu boobaa day mën a convoqué régulièrement conseil bi mais maire bi defu ko ñu jàpp ne bi ñu ñëwee ci escalier yi la ñuy joxee documents yi nañu dugg leen ngeen délibéré mais ba ñuy ñëw beneen irrégularité bu mag am na foofu ndax bi ñu ñëwee dañu fekk quinze heures cinquante balaa balaa balaa balaa 17 14 heures cinquante balaa 10 15 heures maire bi démarré na réunion bi ak ay njegeñaaleem 26 personnes ñoo nekkoon ci salle bi donc këram amu fa woon bi 26 personnes yi nekkee ci salle bi 25 yëpp maire bi la àndal lu mu wax d'accord nañ ci majorité mécanique am la ñu bokk donc maire bi ñëw na en 5 minutes. def exposé am ne comme feebar dafa am amul jotaay bi mënul yàgg nañ ko voté te dem am ay conseils yu opposé wu ne ko maire may ñu temps wu ñu am këram parce que këram amul donc foofu tam violé na article 147 du code général des collectivités locale ndax code général des collectivités locales dafa wax ne euh, maire bi bu wootee conseil bi balaa conseil bi di mën délibérer normalement day am këram këram bi mooy day am moitié conseil bi plus benn nit te ñu jàpp ne keroog conseil bi Médina 66 membre la donc trent 34 mooy koro moom 33 mooy mooy moitié bi plus 1 muy 34 donc maire bi si gaawantu la taxawee ne nañ ko voté ñu opposé wu si mais malgré loolu yëpp maire bi dégluwuñu dafa daal di woo majorité am ne leen voté leen ko ñu génn donc 25 personnes ñoo voté délibération boobu ñi ñëwaat ñëpp ci ginnaaw di signé feuille de présence bu fekk nañu réunion ba tas réunion ba jee ci queue de poisson parce que dafa amoon ñu ko contesté dafa amoon benn groupe de conseil bu d'accord woon ci ni bi convoqué ak ni conseil bu tëddee bi loolu amee mu am benn groupe de conseil bu ñu wooyee les élus de la Médina ñoom ñoo jóg taxaw ba mel ni benn nit daal di ne nañ def recours près de l'autorité administrative maanaam bi ñu defee recours préfet jox nañu dëgg ndax artique article 146 ak artique article 147 yëpp dafa am violation préfet cité na ko moo tax mu ne na maire reconvoqué réunion bi waaye li gën a garaaw li gën a garaaw ci mbir mi loolu forme bi la mooy nu ko convoqué ak yooyu ak nu ko defee mais li new ci biir këyit yi moo garaaw ndax la maire bi mu ko bi mu ñu joxee projet de délibération li tax mu gaaw koo mu gaawantu pour ñu votel ko ko mooy daf ñu proposer ñaari délibération délibération bu jiitu bi mu ngi nii daf ñu la ne nañ ko déli nañ ko nañ ko defal virement de crédit wu cent vingt cinq millions te ci cent vingt cinq millions yi benn cent dix million bi moom maanaam mooy doon loo xam te ne ki dépense diverse la koy def mooy poste cinq cent neuf dépense diverse te képp ko xam comptabilité xam nga ne dépense diverse pour tout la lu la neex nga ciy dugal donc maire bi waxuñu ba léegi ne xaalis bi ci Covid 19 bi la koy dugal dépense diverse la wax ensuite ñu ñëw mu laajat ñu beneen quinze millions boo xamante ne ki ba léegi mënul justifier dépense boobu fan la koy dugal loolu kon cent cinq millions yi maire bi laaj ci virement de crédit bu njëkk bi amul benn poste d'affectation bu leer deuxièmement mu laajat ñu di beneen délibération ne nañ ko defal autorisation espécial pour un montant de 187 millions. 187 millions yooyu si biir dafa am benn financement bu tudd PACASEN financement boobu état bi moo ko joxe pour ñu def ci investissement donc mënul mënul dem ci leneen lu dul investissement donc la ca des am na benn cent 112 million boo xam ne dafa jàpp ne cent douze million boobu nañ ko ko jox mu def ko ci éducation def ko ci culture def ko ci sport waaye ñu jàpp ne 112 million nga jël ko bu koo dugal ci ay école grosse réparation scolaire ak fourniture scolaire fii réew mi toll ñëpp jaaxle dirigeants yi gën a mag ci àddina bi naan dañuy dem guerre mondiale contre Covid 19 bi puissance yi gën a mag ci àddina feebar bi jaaxal na leen ñun dëkk bu mel ni Sénégal nga xamante ne bu ñu ne ragal nañu def confinement ndax amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan kon urgence bi feneen la nekk ñun dañ ko nee na jël xaalis boobu mu dugal ko ci Covid 19 bi. mais grosse réparation scolaire ak fourniture scolaire ak culture ak sport duñ loolu lañ ko wax ne ko c'est pas opportun donc looloo taxoon ñu bañ signer délibération ñu bañ voter délibération boobu donc PACASEN bi doon na xaalis boo xam ne kenn mënu ko utiliser ci Covid 19 ndax PACASEN état bee ko financé woon depuis 4 ans pour ñu ut benn investissement chaque commune dugal ci cinquante 59 millions yi donc monsieur le maire document bi moo baaxul tey. collectif la ñu organisé des des élus de la Médina bañ ñu waa Médina gis seen bopp ci Covid 19 bi au contraire ñun dañoo jóg pour défendre les intérêts de la Médina naka lañu ñu défendre les intérêts de la Médina mais ñun tey on est 19 signataires on n'est pas la majorité c'est vrai on est une minorité on presque le tiers du conseil mais le tiers boo xam ne ñoo am dëgg parce que le préfet jox ñu dëgg. document baa ngi nii l'autorité administrative naka la ñuy joxee dëgg ci kaw ñuy tappale tappale wuñu au contraire monsieur le maire dañ ko ne bul détourner xaalisu Médina douze million nga def ko ci ci délibération ne nañ na ko votel virement de crédit te ba léegi mu mënoo ah, wax nit ñi ne xaalis bi ci feebar bi laa koy dugal au moment où moromu maire am yëpp teg nañ ay comité de gestion yu transparent au moment où comité de gestion yëpp commencé nañu maire yi def nañ ay bon de commande seen ceeb yi ñëw na ñu ngi koy distribuer ba presque pare nañ moom nanguwul def bon d'engagement nanguwul ut fournisseur nanguwul ut dara lépp lëndëm ci lu muy def mais lëndëm lëndëm boobu nag moo tax ñu ne ko déedéet askan bi lañ fi nekkal donc na askanu Médina xam ne ñun ñoom la ñuy xeexal douze millions yi maire laaj musu koo wax mu ngay monter ay comité yoo xam ne ay jege ñaalem la àndal conseillers yi ko favorable la dugal ci comité yi délégué de quartier ko favorable dugal ci comité yi euh, politiciens yu ko favorable la dugal ci comité yi imam yu ko favorable la dugal ci comité yi euh, tey maa ngi nii ay liste délégué de quartier yoo xam ne dugaluñ leen ci comité yi recours maa ngi nii jël nañ huissier ba constaté ko ne am na ay délégué de quartier yoo xam ne bokkuñu ci comité de gestion bi mu jël ak ay conseils municipaux mu ngi nii ñu def ba jox autorité administrative bi donc monsieur le maire dama ne njuuj njaaj la nar ci 312 millions yi parce que ba léegi leeralu ko ñun bu ko leeralee ñun ñooy daw gaaw koo voté pour ñu dimbali askanu Médina parce que askanu Médina sonn nañ mais askanu Médina tay nañ waaye tam aussi ñun conseil municipal dañoo sonn dañoo tay ndax bis bu jot ñuy votel maire bi la nga xam ne ñun suñu bopp xamuñu lan lañ koy votel ndax document yi ñu njëkk proposé cent dix millions la wax indiwaat deux cent millions cent quatre vingt sept millions léegi ñu ngi ci trois cent douze millions avec le préfet waaw donc ñu ngi saluer courage du préfet ak détermination préfet légalité la légaliste la li mu ñu wax c'est clair dafa violer article cent quarante six dafa violer article cent quarante sept te dans le fond dans le fond lépp lu mu def ci ci budget poste budgétaire yi amul affectation bu précise donc monsieur le maire dañ koy ñaan mu def li ko préfet wax mooy mu reconvoquer le conseil municipal depuis jeudi préfet nga ko ne reconvoquer le conseil municipal nga tenir compte ci observation yi ñu la wax mais nangu koo def te pour pourtant mu ngay woo ay centaine de personnes ñi dem biroom di fa dajaloo te nee na feebar bee tax kenn conseil bi mënatul daje dimanche bi passé ci réunion bi nee na conseil bi mënatul daje ndax feebar bi te pourtant mu ngay dajale cent personnes biroom ñuy waxtaan di créer seen comité waaw mënoo woo conseil bu la délibéreel pourquoi mënatul woo conseil bi parce que bu woowee conseil bi dina rendre compte dina leen wax ne leen njuuj njaaj yi mu naroon te conseil bi démasqué ko dina ko dina dina leen rendre compte par force parce que ay njuuj njaaj la naroon njuuj njaaj yi nag du tey la ko tàmmali ñun Médina dañoo sonn ci njuuj njaaj yi jël ay conseillers municipaux weer bu dee nga fay leen ay salaire ñi nga embauché leen ñii nga jël seen ay doom ba ñëpp noppi jël notable yi ak conseil yi def leen ay délégué de quartier pour ñu noppi weer bu dee nga fay leen waaye dama ne jël alalu Médina ay centaine de millions di ko def sa poos créer sa ay GIE créer sa association créer sa clientèle politique plus de 400 employés à la mairie de Médina kenn liggéeyul kenn xëyul loolu yëpp ay clientèle politique la mais dama ne il est temps loolu moo tax conseil bi ne loolu dootul amati. népotisme bi nekk ci mairie bi dafa doy jël rakk jël jarbaat jël doom poste stratégie yëpp nga dénk leen ko jël waa Médina solo leen ay gilet ñu génn ci marché bi di tojante ay bopp dama ne loolu dafay doy Médina loolu moo tax conseil bi jóg comme un seul homme pour dire non ñun tey monsieur le maire bés bu indee document bu leer ñun ñooy njëkk voté document bi ñun ñii yàkkamtiwuñu lu dul waa Médina jot seen ay dund transparence lañu soxla na teg comité de gestion bu transparent jël ñi mu ci war a jël dugal mais profité ci occasion pour wax leen ne leen mais tey jege ñaaleem yi mu jël ak leader politique yi mu jël Médina mais leader politique bu Benno Bokk Yaakaar yooyu du ñu ay garantie de transparence tey même Seydou Gueye en tant que ministre amul fenn ci arrêté ministériel bu ñu ne bu ñu ne euh, ministre day bokk ci comité de gestion mu jël Seydou Gueye def ko vice président wu comité de gestion bi kon mook Seydou Gueye ñu ànd di def loo xam ne leerul loolu la ñuy dénoncer parce que di ci ci terme de référence su ministre arrêté ministériel bi délégué de quartier yi ñoo ci bokk leader d'opinion yi ñoo ci bokk société civile bi ñoo ci bokk bàjjenu gox yi ñoo ci bokk femmes yi ñoo ci bokk jeunes yi ñoo ci bokk ak conseil municipal yi ministre bokk ci dama ne tey il est tant que waa Médina xam ne ñun li ñuy def ñoom la ñuy geeral ñoom la ñuy xeexal parce que dafa am luubal bu rëy bu nekk si biir Covid 19 bi. Covid bi feebar la boo xamante ne ki jaaxal na àddina bi moyen la pour dimbali sa réew pour liggéeyal sa askan comme ni ko yenn maire yi di defee ñu leen di di leen ci jaajëfal mais am na si ñoo xamante ne ki moyen la pour ñu enrichir seen bopp jël xaalis bi dugal ko seen gafa di ko pàccoo ak seen ay xarit ak seen ay mbokk ak seen ñi leen neex. tey ñun waa Médina loolu la ñu jóg di ko xeex donc combat bi ñuy combattre du nous n'avons rien contre la personne de Bamba jote wuñu ak moom dara ndax coow li yëpp amul woon ci politique ci conseil municipal bi la amee conseil municipal nag instance la boo xam ne fa la ñuy càmbare ak di saytu liggéeyu Médina donc population yi ñoo ñu fal pour ñu liggéeyal Médina liggéey boobu nag la ñu jóg fas yéene liggéeyal waa Médina collectif bi day continuer di wéy di défendre ay intérêt Médina pour que maire bi jaarale yoon gestion am la gestion de la mairie est une gestion nébuleuse dañ koy décrier à chaque fois bu ñu ko waxee dañuy saaga dañuy agressé dañuy dugg suñu ay vie privée mais le débat se trouve ailleurs tey débat bi xam nga fan la nekk na maire génn wala ay jege ñaaleem génn génne document daal di daal di ñuy yey poste d' affectation bu nekk ñu wax lan lañ ci lan la ci lan la ci nar loolu bu ko defoon ñu ànd ak moom mais doo doo ñu ne mënul ñëw ne ñun minorité préfet jox ñu dëgg ci lan ko dikk ba jox ñu dëgg parce que dafa violé article euh, euh, dafa violé cote général de collectivité locale ensuite li mu def yëpp c'est du c'est du faux même conseil yi newoon présent le 8 xamuñu lu ñu doon délibéré conseiller boo ci wax mu ne la Bamba nee na nañ ko délibéré 187 millions koo ci wax mu ne la 110 millions la laaj te 312 millions la laaj mu ngi nii. au total douze million nga déclaré vidéo yaa ngi nii TFM génn na fa vérifier leen ko teg leen vidéo lu mu wax 110 million laay dugal ci xeex bi waaw 110 million nga def demande cent 312 million et la différence foo koy dugal foo koy dugal question foo koy dugal donc c'est ça la la question ñun nous avons rien contre le maire Bamba Fall donc lu ñuy ñaan mooy transparence li ñuy ñaan mooy ayant droit yi ñi ko soxla Médina tëdd feebar ñu jàppale leen li ñu bëgg mooy tey maire teg comité de gestion bu transparent daal di woo ñi mu war a woo ci terme de référence bi yëpp conseil municipaux yi woo délégué de quartier yi woo imaam yi woo bàjjenu gox yi bañ a seet ki ànd ak man ak ki àndul ak man ndax feebar bi ñëpp la touché li ñu bëgg mooy mu indi document bu transparent fournisseurs yi ñu xam leen lu ñuy furni ci ceeb ñu xam ko lu ñuy fournir ci denrée alimentaire ñu xam ko lu ñuy fournir fournir ci produit sanitaire ñu xam ko lu ñuy jënd ci ay masque ñu xam ko mais bi bi bi pandémie commencé ba léegi un franc mairie Médina génnewu ko pour soulager ay population depuis 60 jours presque on est en couvre-feu maladie baa ngi terrassé nit ñi amul benn benn benn benn effort bu la maire de la Médina def pour soulager ay population moo tax feebar baa ngi dugg Médina tëw fee génn amul produit sanitaire du eau de dara centre santé yi kenn dimbaliwu leen ci ay moyen ma ngay tabax ay chantier toilette publique yi lay toj marché ti lay xëy au nom de quoi te feebar bi ne fi mais ku wérul taloo école ku wérul taloo chantier loolu tax ñu ne maire na arrêté chantier yi na arrêté jàkk yi muy toj institution bu toll ni mairie Médina nga nga toj jàkk ci buntam dugal jàkk ci biir toj ay bureau c'est grave toj ay bureau yi nekk ci biir institution municipale tabax jàkk ci biir euh, institution municipale tout ça pour lan clientèle politique ak euh, fonds politique non nous disons non Bamba Fall doit revenir à la raison donc ñu demandons aux autorités de ce pays xam nañu li tax le sous-préfet bloqué daal di annuler le conseil municipal bi passé parce que daf njuuj njaaj la woon donc ñu ngi ñu ngi koy demander moom ne reconvoquer le conseil dans les plus brefs délais wax ak les conseil municipaux ba ñu tombé d'accord ñu daal di ñu daal di votel ko un virement de crédit pour daw gaaw soulager les populations soxla nañ ko donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant